أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين فقال ذكره الأمين بكركلي وجسدي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين فانقاد ذكره الأمين جسدي ناجيت ذا العرش العظيم بالحب مع بر النظيم ولي كان بعظيم وصانني عن قصتي نحى بتوحيد الأحاد قلبي رب الملتحاد ولم يكلني لأحاد في سفري وبلدي إلي قال في السفر حبي وحبي غفر مستغنيا عن النفر ينجي في قلبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رحمة تجان ابن تيانو جبي رضي الله عنه فنبارك الله fa tabarakallahu sëñ bii doon jàng léegi sëñ Abdou Lahad Mbacké wax nga wax ji ci door bi ngay door alxuraan bi loolu moo fi indi sëriñ bi buum gii nga xamante ne ni moom la yàlla wax ñun ñëpp nañ ci mooy ba teeri ci moom fa tabarakallahu loolu moo fi indi xalifa Babilor ci Ahmad Tijaan ba yàlla na yàgg diggante mag kii nga xamante ni mooy suñu sëriñ Maam Moor mm-hmm. fa tabarakallahu lu yàgg la. dëgg yàlla moo leen boole. Mhm. te yàlla rek a tax. Mhm. diine moo leen boole. te yàlla rek a tax. fa tabaarakallaahu mu nekk loo xamante ne ñun taalibe yi. Mhm. lu sedd suñu xol. kon alaaji Màkka. daanaka wóor bi ak suñu sëriñ bi seen àndin adduna bi yëpp sedd na xanaa dañuy ñaan yàlla na yàgg lool. te ñu ànd ak wër lool. yàlla dolli leen jàmm ak sutura yokk seen xam-xam yokk wërsëg bi jaay nabil Moustapha ndaxte loolu suñu njëriñ kese lay doon njabootu ceerno ji bi nag kon nag maa ngi sant Màkka bu baax di sant Saar mi bu baax ndax yéen ñaar ñi kenn ku ci nekk ka nga féete eh, yaakaaroo ko ci ak wet hmm. sëñ Touba kii sëñ Touba la yaakaar Cheikh Mbacke ak Mbacke Gaye Fall ma la yaakaar kër si Thierno Diouf Lambaye la yaakaar mooy Baye Fall maam Mor mii li si maam Mor mii kenn ku topp maam Mor mënu ko ni Cheikh Ibrahima man si sëñ Touba ne la maam ah, kii mu mel si maam Mor mii yàlla ko léppam foofu léppam jox foofu bokkam di ko kon nag maa saa yi ñu ngi lay sant bu baax makka ñu ngi lay baax ni nga ko waxee soxna si ni nga ko ñaanal yàlla yal na ko na loolu ni mu taxaw ci kanam sëñ bi nee naa ko Baye Fall la kon yal na yàlla doon jàppale defal ci barke man góor foofu ne ñu sante yàlla julli ci sangu-sangu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw nañ ak yar bu bu mat sëkk ak ak jëg bu mat sëkk ñëw nañ itamit jël suñu wàll ci barke bi nekk fii ñëw nañ itamit nuyu ko tatagal ko tey dox mbokk itam bëgg nañ itamit teew nañ fi tamit ndax bëgg kenn bañ ñu njëkk ci barke yi nga xamante ne moo fi nekk ndax xam nañ mbaax di nekk fii te sedd nañ ko itam mbaaxam ak yaatoom ci biir dëkk bi ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ko yokk nañu jàmm yokk nañu doole ci dëkk bi moom mii dolli na dolli na jàmm ci dëkk bi dolli na barke ci dëkk bi dolli na mbaax ci dëkk bi lii nii nag bokk na ci ci li ñuy seede def def bés nga jël ki nga xamante ne ñëpp dañ ko bëgg ñëpp ki ñëpp teral mooy sëñ Abdul Karim borom makaarimul axlaaq nga jël ko def ko parrain wu bés bi mu yéene ñëw yéene ñëw def ñaan ci ci dëkk bii di Bambilor lii nii nag mooy wane dëgg na yow mi dolli nga li mujjee rek nag la wax waxul li jiitu ne kon nag lépp li nga xamante ne lu mujjee la rek lu bees lay doon lii nag mooy li bees. Ah, sa liggéey nag du dañ mukk ci di beesaat bés bu ne. sa taxawaay ci njaboot gi. njabootu Bambilor. ku mel ni Adama. Sayer ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ñun ñëpp ñu ngi lay jaajëfal ci taxawaay boobu. Euh, matoon na ñu décorer matoon na tey jii. ñu décoré la ndax sa taxawaay mu sant ci nag Baye Makka mii ndax digganteem ak moom Baye Makka ja moo ko ubbi bés bi bay Makka jëlee sa loxo indi ko ba ci moom bés bu nekk mbégteem eh, ci moom day gën a dolli ci yow cofeelam dafay yokk ci yow yow tamit sa cofeel day yokk ci moom te moom mu ngi koy yëg loolu nag amin beltoo ñu ngi ciy kontaan kala ko ndax lépp lu bàyyi Màkka ja ubbi barke moo ci toog mm-hmm. ndax ay mag ñoo ko yar ay mag ñoo ko cuub ah, defar ko ba mu mel ni mu mel def ci moom li ñu def ci moom kala mu umu arjuna ɓaɗo moo tax nag képp koo xamante ne mi ngi jege ci moom dafay mel ni rek mag ña la nekkal. ndax nit ak sëriñam. sa sëriñ ngay jël dugal ko ci sa biir. li ci sa sëriñ. li ci sa sëriñ. ngay jël nga dugal ko ci sa bopp. jël nga dugal sa boo gisee dem bon bu meew bu weex tàll. meew bu weex tàll. su sa dara duggee lu ñuul. boo ca lu ñuul duggee. terewul lu weex la weex lu weex. dafay weex rek. lu weex la lu weex la weex la ba weex la ba noppi li ci sëñ Touba li ci sëñ Touba tàll def lu ca ñuul rek lu ca ñuul rek ko sa ñuunal yaa kon nag bokk ndey kon nag bokk ndey bokk baay bokk baay lii. lii rafet na lool rafet na lool. waa kër Cheikh Ahmed eh, Ahmed Tijani. waa kër Cheikh Ahmed Tijani. waa kër Bou Kounta Ndiassane. waa kër Bou Kounta Ndiassane. Baye Laye Baye Laye. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. ñu dajaloo ñu dajaloo nekk benn nekk benn. di ñaan yàlla di ñaan yàlla. ñu nekk benn ñëpp nekk benn. parce bi ñu boole benn la. ndax càllale bi ñu boole benn la. istamaa nag. istamaa nag waa kër Serigne Touba. waa kër Serigne Touba kese seen biir. Mhm. balaa ngaa jéggiwaale sa ëtt. balaa ngaa jéggiwaale sa ëtt. na fekk sa ëtt mokk. na fekk ñooñu euh, mokk nga mokk mokkale ngeen. ñooñu mokkale ngeen. ngeen bokk ndey bokk baay ba no ngeen bokk ndey baay ba noppi. jéggi wala defar soo ko jéggi wala defar. bala ngaa defar dëkkandoo. bala ngaa defar dëkkandoo. kër na baax sa biir kër na baax ba pare. ñu góorgóorlu góor góorgóorlu maam góor nag maam Mor nag mi ngi ci góorgóorlu mi ngi ci góorgóorlu ci biir ak ci biti Baye Mbacke Baye Mbacke jërëjëf jërëjëf taxawaay bi rafet na sayer nii ngeen euh, euh, uufee sëriñ bi nii ngeen uufee sëriñ bi noonu rek la noonu rek ku bëgg jariñoo ku bëgg jariñoo jël sa yitte jël sa yitte boole boole sa ñàkk nga yaakaar sa ñàkk nga yaakaar sa ka nga yaakaar sa ka kenn matalewul kenn kenn mataliwul kenn mataliwul ka nga yaakaar ka yaakaar ak ka nga doylu ak ka nga doylu kese mbir mi doylu kese la mbir mi doylu kese la doylu kese la te gis nañ ne doylu ngeen sëñ Mame euh, gan gu fi ñëw sa gan la te doxee nga ko waxee nga ko jëfe nga ko mu ne kon moom deselu la dara mënatul laa fay ci dara nee xanaa dañ lay bàyyeeg sëñ mi mën fay mu fayal ñu la boppam di wax ne moom mii kenn ëpp ko ab cër ci sëñ Tuubaa billaahi wallaahi tallaahi dëgg la nee na moom sëñ Tuubaa te am murid képp koo xam ne si ne ni yàlla def sëñ Tuubaa neex na la wuutewul ma ak sa jëmm mu ne moom nag waxuma ni yàlla def sëñ Tuubaa neexu neexu ko rek sax yem ci waaye dafa takkaan ndiggam di liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyu biir boo xam ne murit yu bëri fekk ñu ko fi te xamuñu loolu maa ngi mu ne waxtu fu ne moom mu ngi koy junj rek. waaye tey naa ko tey dina ko wax mu leer. murit yu bari. yu bari. am na lu muy defal sëñ Tuubaa. moom mii. te murit yi defaluñ ko sëñ Tuubaa. nee murit yu bari te murit yu bari defaluñ ko sëñ Tuubaa. nee na am na murit yoo xam ne. juddoo nañ ci yoon yi màggee ci yoon yi màggatee ci yoon wi. màggatee ci yoon wi. ba wàccub liggéey. te musuñoo jàng xasida ak nooru daara yi laa ilaha illallah te moom boo demee ca néegu biiram kaamil alxuraan nga fay fekk ak benn nooru daara yi ak kurusam képp nee na moom bëggul nag mu wax ko nee na wanu ko ko itam nee na moom moo ko gisal boppam dama bëggoon sàcc. mu ne keroog ba mu ko gisee daa bëggoon a àpp nooru daa nooru te nee na da caa yeddaat boppam. ba tàmbali na ba tàmbali na nooru daara yi. nee waaye mën na koo jàng jàng juróom-ñaari xaaj la koy def daal. mu ne kon ak soññee ci moom. te murit yu bari. xamuñu ko dañuy wax gis muy wax di rafetal rek. xew wu am kër sëñ Touba. te xew wu am kër sëñ wala wala wala wala liggéey bu am kër kenn na jiitewu ko ci. dëgg la wax nañ ko léegi. kër sëñ Touba gii moo ko ubbi. nganam gu gam fi defoon. engagement yam fi jëloon. moo andi lii lépp tey. dëgg la. mu ne mbiram nag. ku ko xamul rek moo koy laam-laamee. mais li ñu wax léegi rek. nit di ko di ko di ko bëgg ne man mii de nangu naa. mooy sabab xalifa man. te nee la muy wax sëñ Muntaxa moom la koy wax. la muy wax kilifaam yépp moom la koy wax. ndax lislaam a ko ñor. doomu aadama a ko ñor. day dajale rek. mu ne kon nag ba yàlla na yàlla guddal sa fan sunu kanam nga yàgg lool te te nii mu mel noonu la tàggatee rakkam yëpp ak njabootam yëpp ñu mel noonu dalee ko ci Cerno Malick Ba rakkam Cerno Ousmane Cerno Moustapha ba ci seeni rak ñoom ñëpp jikko ji nekk ci Cerno loolu la dressé ci ñoom muy jëf te du ko wax dëgg la ndax bés bii jëfi Cerno Malick jëfi Cerno Malick si na fi te ci saw tur la ko indee ne ma ne ko Cerno Amadou moo la ko jox te nee na xamul ba xam gisante ngeen wala gisante woo leen waaye nee na daal yow mi yaa ko ko jox nee na moo tax bi nga yóbbantewaate mu xaw koo jaaxal nee na nga ñëwaat wax gën a firndeel yëf ne kon nag ba bés baa ngi noonu njaboot gaa ngi nii li nga wax ci soxna waalo itam dégg nañ te dinañ ko jàpp digal nga ñu nee na digal nga ko digal lu nga neex lu mu sawar a jëfe nee na dinañ ko jàpp bu baax ba nee na di la nuyoo rek sëñ Abdoulaye Mbacke mu baax mii ab jarbaatam la moo ko way juróom wu jigéen ñoo bokk benn baay waaye nag ñoom ñu bokkaat Mame Mor ndax Serigne Thierno Mbacke moo ko jur Serigne Baara Khula jël Mame mu doon ku sawar lool di liggéeyal lislaam ci tool alxuraan yor daara ju mag ca Touba tuddee ko Cheikhul Khadim di fa jàngale alxuraan di fa jàngale xasida nee na ñu ngi sàkku baax nga ñaanaloon ñu ko di la nuyoo rek doom jële Serigne Jiile Abdou Khadir bu sa baax ma le nee na moo koy juróomu góor ñoo bokk benn baay way juróom moo génnoon àdduna daaw ne moom mii moo yore daara ja waaye nee na lu bari lu muy dox lu Tuuba moom mais la koy dox loo nee na du ko yónni fen wala mu liggéey loo ba mu nekk tey bisu jàng nee bu dee acca rek mu ne acca jërëjëf Boussou ñu ngi sàkk nga ñaanalal ko ak njaboot gi nee ñu ngi lay nuyu rek Seydina Omar Kànje mu baax mii ñoom ñaar ñoo bokk maam yaaba xari maam Diop muy ndijaay ci sëriñ bi taxaw ko lool semaine bii yëpp moo ngi fi dëgg la ànd ak ci liggéey nee na lenn ci way juru jigéen muy soxna Jatu Mbàkke ak soxna Faatu Kinne Jatara soxna Faat Bintu Jatara ak soxna Ami Mbàkke neen ñoom ñëpp bànnun ci biir nee na boo gisee mu lay tuddal ñooñu da leen a xamul te mu bëgg nga xam leen di la nuyoo de doomi di yaayam jee muy alaaji Cheikh Ka di doom ci Cheikh Gaawaan ka mu baax mi moom tamit yore daare alxuraan ju mag ca Touba kaamil yu bëri nga wàcc. mu ne nga xam ne ñoom ñëpp ñu ci bëri kaamil yu bëri nga wàcc. jagleel ko ñii ñu ci rendre hommage tey di Serigne Mamor mu sëñ Fallou moom sëñ Touba di ab sëñ Abdoulahi yàllaay buur moom sëñ Mor Soxna moom Mamor Jaara waaye nag di ci rendre hommage way juróom xaritam soppeem Ceerno Jibi Ousmane Ba nee na nag boo leen gisee. rendre hommage. nit ki bu koy def nit. nit ki bu def nit. ka dem la concerné. nit ka dem la ak moom mi fi nekk. ak moom mi fi nekk dëgg la. wallaahi waaye du caagi na ñi fi bàyyi. waaye du caagi ñi fi bàyyi. moo tax mu di ko def. amul mu ne amul kenn ku muy rendre hommage. ba dem ci sa njaboot. ci sa njaboot. di yëglu di la. Cerno ngi nii toog mooy xalifa baay Cerno Jibi Ba waaye gëm na ni makka makka mi baay makka mi moo njëkk a gis affiche moo njëkk a gis affiche bi Cerno mi ñoom ñëpp dañ cee yemandoo rek nee nag sañ-sañ bu ma am ci moom la xam ne ñoom ñaar ñoo bokk way jur woowee waaye nag di ci rendre hommage tamit Baye Kunta Diop doon jàmbaar ci daara ji ak góor mag Diop di mag ci ñan jóob ak Adja Mareetu bokkoon ci daara ji bokkoon ci daayire maam jaara di leen ci fàttaliku ñoom ñépp waaye ak Baye Ndiaga Fall moom sëñ Mourou Awa Balla Fall ndax da koo jege lool ba mu tuddee Baye Thierno ji bi moom na cay doon teg mu ne ñooñu la ciy fàttaliku di leen ñaanal suñu borom yeesal yërmande ci moom ci ñoom ak ak njëriñ fàllu cëru sëñ Abdou Karim cëru boppam mu ne kon boog ba mu ngi noonu nga ñaanalal nu monsieur le maire nag ndax taxawaayam rafet na ànd gi ma dëggul nëbb ko. féete gi mu féete ñun nëbb ko. moo tax ñun itam ay gor lan ku ñu jàpp ñu jàppal nee na sa